mbokki Leewtoo ñoo leen di nuyuwaat baax a baax fi ñu leen daan nuyoo ñu ngi tey le 8 la décembre 2019 fii ci stade Adrien Adrien Senghor tey nag ma ànd ak Moussa Fall comme niñ ko baaxoo di defee Issa Diouf woo fi gars yi comme niñ ko daan defee amateurs yi ñu leen di nuyu képp ku ñuy suivre Moussa Fall tey ñu xool bu baax turandoo Adrien Senghor moom moo ngi nii kii lañ tuddee Adrien ñu xool ko borom verre yu rafet yi macha allah costume beeg bi mu am solo doon loo xam ne histoire bi da ko marqué ma ànd ak Moussa Fall ñu nuyu mbokki internet yi ñu dugg ci biir làmb ji won leen li nga xam ne moom lañ leen jëlal muy làmb ak ci biiram. attention Diaka Faye la ilaha illallah Doudou Sané daan na ko Doudou daan na ko impérial Doudou Sané non da ko sàcc ci waaw fay nañ leen. waaw mais Doudou tey moom yëf doy na waar da ngay jëkk rek ñëw rek jël affaire waaw gis nga di kontaan si yéen rek di jaajëfal ñëpp euh, di ñaanal ñëpp jàmm euh, di jaajëfal waa Diofior bu baax a baax a baax club amuma seen fay. di ñaan suñu borom nag suma combat maak Soksim numéro 2 le 26 janvier yàlla may ma ci ndam waaw. waaw mu mel ni combat bi nañ ko confirmé nañ ko. instant yi nag entraînement rek. loolu bëre la ak door bokkul ak bëre bi. waaw di woo gars yi yëpp grand grand cadre yu Diouf yooyu yëpp maa leen di woo pour ñu jàpp si combat bi seen combat la dégg daan ñun ñu dëkk Diouf yor ne ci diaspora bi ñii nekk Amérique ñii nekk Espagne di wax Doudou Sané Doudou Sané mais nga am combat dóor bokkul ak combat bi nga xam ne moom mooy combat simple bi. dëggantaan di leen ñaan rek ñu taxaw ci bu baax a baax a baax a baax maa ngi woo ñëpp fans yi yëpp maa ngi leen di woo combat bi ñu jàpp ci combat bi seen combat la billaahi kontaan naa trop di jaajëfal sama gaay yëpp kontaan naa ci yéen billaahi ok xale baa ngi noonu xale jof yor bi mbokki Leewtoo mu ngi noonu Doudou Sané daan naa Caaka Faye jël bu set wécc final bi waaye Caaka il n'a pas démérité yàgg na di ko def waaye tey gisat nañu làmb beneen facette combat boo xam ne ay songoon la presse matul i minute ñu ngi koy félicité Doudou Sané waaye nag di encouragé Thiaka Faye di wax mbokki ta ñuy suivre ci internet bi ak mboolem ci ñit ne ci addina bi di leen jaajëfal bu baax a baax leen wax ne rendez-vous dimanche la fii lay doon ci arène Adrien Senghor maam Diarra Thiam gis nañ lu mu fi def jërëjëf